leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz Sen TV daleen ak ci xibaar waaye laata loolee ñoo ngi lay ñaan nga daal di aimer vidéo bi bës like bi boo paree dugg ci commentaire yi daal di bind yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal daal di àddu wax ci coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñi leen nag daal di nañuy dem foofe ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké ngir waxtaan ak ki nga xamante ne ni moo di xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké gannaaw ba nga xamante ne ni nag daal di nañuy sekk ab waxtaan ngir waxtaanee ci tolluwaayu réew mi ak ki nga xamante ne ni l'opposition di Ousmane Sonko ci état bi nga xamante ne nii rek moom la nekk jamono jile waaye kale di Serigne Mountakha Mbacké la mu leen xamal rek moo di li ñu leen fi indi na leen si bu yàgg a yàgg ba nga xamante ne nii sax daal dinañ leen di indil ay firndeel ci li ni mel loolee nag ko moo di Habib Sy waaye journaliste d'investigation bi di Pape Alé Niang moom mi leen nag la mu xamle moo di kii di Serigne Mountakha Mbacké la mu yónnee Ousmane Sonko mooy ngir mu bàyyi li nga xamante ne nii rek moo di de la faim maanaam xiifal bi nga xamante xamante ne nii rek mi ngi koy amal boobu ba léegi ba ñu ko tegee loxo loolee nag la ko Serigne Mountakha Mbacké daal di wax loolee nag du samay kaddu ay kaddu yi Pape Alé la waaye rek loola nee day exiger ki nga xamante ne nii nag moo di Macky Sall ngir mu bàyyi ki nga xamante ne bi mooy wax ba léegi nee na ndax ñu xool ndax njiitu réew mi dina respecté li ni mel bu Ousmane Sonko respecté kaddu yi ki nga xamante ne nii moo di Serigne Mountakha ñu xool ndax Macky Sall dina def li ni la même chose moom mii di Pape Alé Niang daal dinay fàttali ni ki xamante ne nii moo di Serigne Mokhtar Mbacke moom mi nga xamante ne nii nekkoon xalif yal na yàlla yokku leeram moom mi leen nag ba mu fu toogee laajoon na ngir ñu bàyyi Karim Wade lu mat ñetti yoon yoo xamante ne nii rek waaye deful benn effet bi pa nag ñu xool ndax kii di Macky Sall bu Ousmane Sonko respecté la ko Serigne Mountakha Mbacke wax ñu xool ndax kii di sal dina def la même li ni mel loolee nag kii di Pape Alé Niang moo ko daal xam